de retour sur ce plateau ñu daal di dalal Tidjane Daff nekk président mouvement euh, tous debout ñu ngi lay dalal ci plateau bi di la nuyu. merci beaucoup Assou maa ngi lay fay di nuyu say téléspectateurs. Mhm. ce matin. Euh, ci APR nga bokk ci mouvance présidentielle bi est que mën nga ñu expliquer un peu mouvement tous debout balaa ñuy dugg ci ci ci sujet bi mouvement bi kañ la sosu ak lan moo ko tax a jóg. alors euh, mouvement tous debout mouvement bu ñu créer la en avril 2018. mu nekkoon euh, mouvement bu regroupé plusieurs personnes des jeunes cadres des étudiants qui ne se reconnaissaient pas forcément dans le cadre des des des, des partis politiques mais aussi il y avait des jeunes qui étaient dans des partis politiques dont ma propre personne. Mm. donc euh, c'était pour accompagner le président de la République pour mu am un second mandat. pour mu am second mandat mais bokkoo leen ci ñi koy défendre pour mu am troisième mandat. Euh, on se on se prononce pas pour le moment sur cette question. pas pour pourquoi pas pour le moment mënoo leen joxe seen position wala da ragal yéen tamit ñu. Euh, diaboliser leen comme ma basé wu ci second parce que second c'est c'est différent de deuxième boo nee second mandat je suppose que c'est c'est pour de de bon. pas pour second c'est ces derniers. il faut juste retenir que on a soutenu le président pour son second mandat. d'accord son second donc. Euh, dernier mandat alors euh, ñu doon euh, féete démb 12 ans wu APR am na ñoo xamante ni en tout cas gis nañ teewoon na teewee woon nañ ko président de la république nekkoon def leen faux comme nu ko journaux yëpp xëy euh, waxee naka nga gisee démb li nga xam moo di célébration parti bi 12 ans déjà. alors euh, ans pour un parti politique c'est assez jeune. mais c'est ces douze années yu nga xamante ne ñun ñu fi nekkoon depuis le début c'est c'est c'est douze années d'une d'une aventure extraordinaire parce que jaaroon nañu ay ay ay euh, ay ay situation yu difficile euh, mais yàlla dogal aussi on les a pas traversé longtemps yàlla indi ñu au pouvoir aussi euh, ñu ñu ñu doon on a permis au pays de faire des avancées yu rëy donc loolu euh, on s'en félicite et c'est l'occasion pour nous de féliciter ñëpp ñu nga xamante ne c'est les membres de de l'Alliance pour la République ak ñëpp ñu nga xamante ne tey dañuy accompagner le président Macky Sall donc c'est dire que euh, on s'en félicite et puis euh, on ne le regrette pas on ne regrette pas suñu engagement auprès du président de la République bu mu bu mu wootee ce fameux appel de premier décembre. et organisation parti bi nga xam ñu bëri dañ ko indexé APR ku ko xam-xam ni dese na quand même duñ ne organisé wu mais organisation bi des na taxaw euh, pour vous lan la ñu war a mën def pour remédier à cela parti bu toll ne euh, parti wu njiitum réew mi euh, ñu toll ci jamono joo xamante ni manque d'organisation dañ ko ci seetlu pour vous lan la ñu war a mën a teg loo xamante ni peut-être mën nañ nekk mën nañ d'ici à quelque tem wax un parti très structuré contrairement ak at yi nga xamante ni passé nañ ko. alors man loolu dama koy dama koy réfuter et je pense le président l'avait même réfuté à un certain moment le fait de dire que parti bi organisé wul ñun nanguwuñ ko parce que ñun ñi nga xamante ne on était là depuis 2009 xam nañu pour képp kuy woote wu responsable ci parti bi am nga comité donc pour nga pour nga pour nga nekk responsable il faut nga am comité de cent personnes et ce sont les les présidents de comité ñooy ñooy ñooy désigner coordonnateurs communaux yi. donc amoon am nañu ay coordonnateurs communaux on a des coordonnateurs au niveau des départements et des coordonnateurs au niveau des régions donc du point de vue de la structuration le parti est et je pense qu'on a même un directeur des structures donc côté boobu moom c'est quelque chose maintenant il y a de nouveaux venus qu'il faut plus ou moins chercher à intégrer ak affaire yooyu c'est une œuvre humaine l'APR donc am na ay perfection yu mu war a def mais remous yi moom loolu on on le note souvent ci parti yu bëri mais quand on parle de d'organisation et de structuration mooy peut-être renouvellement bu ñu ci war a def souvent essayer de voir avec certains postes et tout ça euh, loolu aussi. bon est-ce que nekkul loo xamante ni lu ñu war a xoolaat la. pour moi loolu su jotee les instances du parti daañu apprécier mais ce qui est constant. pour yow jotagul. non je veux dire ce qui est constant c'est que tey suñu parti moo ngi fii et c'est parti jeune et dynamique. Euh, et pour preuve depuis depuis depuis 2009 ñoo ngi dem ay élections on a remporté en 2009 de localité boobu ñoo ngi mooy suñu premier jour électoral mais après à partir de 2012 élection bu ñu bokk ci ci ñu ci ñu gagné lañ bokk donc ñun aujourd'hui euh, je pense que on ne on ne on ne refait pas une équipe qui gagne pour le moment on gagne donc c'est ça. donc vous pensez que ni loolu warul nekk seen priorité du moment où vous gagnez yaakaar ngeen ni waroo leen structurer parti bi. xam nga ñun suñu priorité dafa war a nekk ci sénégalais yi wóolu nañu wóoluwaat ñu. travers euh, organisation. non non laissez-moi terminer. ci war a mën euh, defee loolu tey sénégalais nañu wóoluwaat euh, suñu priorité dafa war a nekk ci jooyanti problème mu sénégalais yi suñu priorité warul nekk forcément ci sur sur sur des sur des trucs d'ordre politique yaa y a des de la politique il y a des moments pour travailler et je pense que le président a été réélu juste pour un an. depuis un an donc euh, tey dafa nekk ci ci priorité wu président de la république pour répondre sa question sànq lu tax ñëwul euh, réew mi tey mooy priorité président de la république donc parti bi jotam dina ñëw et au moment donné su ñëwee président dina ci dina ci àddu et puis c'est pas c'est pas par manque de solidarité hein ou manque de truc je pense que le président euh, euh, il un lien très fort affectif avec les les militants du parti te euh, le fait que mu ñëw wala mu bañ a ñëw c'est pas ça qui est essentiel ñun lu ñu seek ak président ñun xam nañ ko président lu mu seek ak ñun ñun xam nañ ko donc loolu moo ci gën a important. Mm-hmm. ñu bu ñu bu ñu taxawee ci priorité yooyu nga doon souligner sànq dafa am loo xamante ni euh, itam euh, priorité la muy xëyu ndaw ñi. Euh, jeune nga gis nga jamono ji lan moo xew ci euh, réew mi ndaw yi nga xamante ñu ci bëri en tout cas ci ñoom ñu ngi utali Europe di ko jaare ci gaar ba ñu bëri dem ñàkk ñàkk ci seen bakken euh, lan nga mën a jox loolu comme explication parce que on a quand même kenn mënul naatable que ni échec am na quelque part peut-être ku nekk yaay xool fan nga ko mën féetale mais il y a échec quelque part surtout ci côté xëyu yi nga xamante ne war nañ ko woon mën a jox ndaw ñi ba mën toog fii ci réew mi alors Assou disons que la migration est un est un phénomène humain c'est-à-dire le fait de vouloir génn dem feneen pour x ou y raison nit da koy da koy da koy da koy soxla des fois et yàgg na fi am phénomène bi du ci nguuru président Macky la commencé amoon na fi aujourd'hui qu'est-ce qui explique que mu ñëwaat ce serait péremptoire de notre part de dire lii la wala lii la wala lii maintenant beneen affaire bi mooy li nga ne xëyu ndaw yi c'est un problème euh, fondamentalement euh, du du au juste au Sénégal c'est un problème mondial euh, aujourd'hui le président de la République jël na quand même un certain nombre de de de, de mesures notamment la DER ay ANPEJ y a des politiques pour que jeunes yi liggéey et je pense que y a des choses qui sont faites c'est c'est jamais suffisant ça il faut le reconnaître il faut en faire plus pour que les jeunes continuent di fi nekk mais ce qui est important et c'est le message que je voudrais lancer pour pour sama sama morom mais ANPEJ DER FONGIP lan la jëriñ face à cette situation là. ñi ngi fi oh, wax nga ko ñi mais ce que ce que je disais c'est que ce qui est important et qu'il qu faut lancer aux, jeunes mooy ne moi ça c'est c'est quelque chose que je théorise il faut une une une génération de Baye Fall pour réew mi parce que ñun on doit avoir envie de travailler beaucoup plus pour, euh, pour, les, pour les générations à venir. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas être les bénéficiaires des dividendes de notre travail. Donc euh, il faut qu'on fasse, qu'on continue à avoir foi en notre pays, à avoir de l'espérance et de l'espoir en notre pays. Et je pense que l'autre c'est important. Maintenant, pour revenir à votre question, qui affaire ou DR ANPEJ, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas, suffisant, c'est vrai. mais euh, retenons qu'il y a des choses qui ont été faites il des jeunes aujourd'hui sénégalais qui qui ont pu être créateurs d'emplois à travers ces mécanismes de financement la est-ce qu'il faut les revoir xoolaat gën ko ñoŋal wala gën a adapter certains mécanismes de financement à à la catégorie euh, ou en tout cas à la physionomie des euh, des des jeunes que nous avons ça il faut le revoir mais en tout état de cause retenons ko am na ñu nga xamante ne jot nañ ko ci def lu baax il faut pas jeter le le bébé avec l'eau du bain foofu aussi day mel ni c'est c'est pour remettre en en en cause li nga xamante ni ñu xoolaat c'est-à-dire organisation bi nga xamante ni am na ci yooyu les mécanisme de financement. du moment où yaa ngi wax que ni war nañ ko mën a. war nañ ko gën a mën a ñoŋal. Mhm. c'est-à-dire que nous sommes dans dans nous sommes dans une dans une dynamique à chaque fois suñuy suñuy dem dañuy def euh, suivi évaluation ñu xool. tey peut-être euh, le système day day laisser en rade certaines personnes par rapport ak seen formation par rapport ak seen catégorie socio-professionnelle par rapport ak d'autres choses donc mm-hmm. en tout état de cause je pense que c'est important de de réfléchir encore pour pour avoir des des des qui euh, avoir des des voies et moyens beaucoup plus adaptés aux, aux jeunes qui ne sont pas encore pris en compte par ces programmes là. d' accord ñuy fàttali euh, téléspectateurs yi que yéen a ngi ci seen émission euh, matin bonheur en euh, seconde partie ñi ki ñu fi dalal nii di Daf Tidiane Daf nekk président mouvement tous debout dañ daal di marquer une petite pause de temps d' accueillir Abdoulaye Touré co de niolank Lank ngir débat bi.